du ma citoyen du parti politik du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak i doomam ak ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp na ni keneen ku dul kooku ku mu mun a tër rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu séddoo ko moom njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky Sall ñun ñii ñëpp Macky Sall dina jaar suñu kaw moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi na ngeen xam ni bii paa buñ ko dooree amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men booy mooy ban mooy dem leen bindu ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci list yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax 24 jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matul sax 24 jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak nit ndaw ñi fees fa dell dem bindu ji mooy premier degré xeex bi deuxième degré xeex bi mooy Macky Sall nee na am na ñoo xam ne duñu doon candidat fii en 2024 xam nga suñuy wax xam ngeen ma mi di wax ak yéen ba fi ñu taxaw nii one est à onze mois de élection présidentielle ba fi ñu taxaw nii candidat la waaye sama mag jii toog di Khalifa Sall Macky Sall jaayoon na ko doole 2019 nekkul candidat ma ne leen Khalifa Sall day doon candidat parce que dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dem Macky nee na te yaakaarul lu dul justice magistrat yi moo waxaat leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall da jox xaalis. wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu newul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat moomu leen senegal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da ngeen di jaay soo waxee ñu ne force restera à la la loi est la loi du peuple que Donc force restera au peuple sénégalais. man de naa leen wax man usmaan Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def nu mu laaj dinaa ko def xam ngeen président xalifa sal bi mu tollee yi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais ni moom républicain la bëggoon sénégalais ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république u Macky Sall faalewu ma ko justice makisal Sall faalewu ma ko parce que ñoom parce que ñoom ñooy les hors la loi dans ce pays ñoom ñooy les hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata ñu xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours du weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je l'assume ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def la li lay def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxu ñu nit xaalis sàcc ñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li war a defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko senegal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm ba tey mu yegg fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu Sénégal li ñu bëgg ñoom dinañ ko tere. moo tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay milices jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministres yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu milice génnee songu fi ay nit fu ñu mun ci nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax sa gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR lay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarloog ñun. APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gatsa gatsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi.